Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal jàmm li gën a fës yëglekaay tey jii yéenekaay yu bëri dellu siwaat nañu ci yeesal yi nga xam ne rek indi nañu ko ci magistrature bi yéenekaay bi di Rewmi Quotidien ne Jomaay Fay moom kay amal na coppite yu mag a mag ci biir magistrature bi Ibrahima Ndoy tabb nañu ko mu doon procureur de la République bu Ndakaaru Mbàkke Fall doon procureur général Mamadou Diouf ñu daal di koy nommé mu doon président bu bu grande instance bu Ndakaaru Maham Diallo sànni leen ca Tambacounda Mamadou Mansour Mbaye doon ki nga xam ne moo jiite cour suprême Jean-Louis Paul Toupane moom ñu daal di koy nommé mu doon procureur général près de la cour suprême Djibril Ba moom moomee daal di koy tabb mu doon premier avocat général près de la cour suprême Sud Quotidien xëyee moom itam nag lu jëm ci nomination yooyee nga xam ne rek amal nañu ko ci biir conseil supérieur de la magistrature yéene kaay bi ne Diomaye chamboulé na lépp doyen des juges d'instruction Oumar Maham Diallo ak procureur de la république Abdou Karim Diop juge nga xam ne rek moo di Mamadou Seck ñoom ñëpp yóbbu nañu leen ca Tambacounda président de la cour d'appel bu Dakar Amary Diouf ak di Cheikh Bakhoum di remplacer Mamadou Mansour Mbaye ko mu doon premier président de la cour suprême Ibrahima Ndoye ñu daal di koy tabb nag mu doon di koy nommé mu doon président tribunal bu Fatick enquête yëglekaay ne lu soxal wàllu justice ak conseil supérieur de la magistrature mbale mu rëy lañ ca amal Maham Diallo ak i magistrat lem nañu seen kaaka jàll ba Tambacounda yéenekaay bi ne ay affectation yoo xam ne rek rax na punition Walf Quotidien lu ko ne lu jëm ci wàllu cours et tribunaux kay coppite yu am doole lañ ca amal yéenekaay boobee daal di xam ne ni nag ñi daan sonal waa Pastef nag ñoom ñëpp la ñu yóbbu ca Tambacounda ma ngay dellu suwaat moom yëglekaay boobee du ñu xamaleeg patron bu yees bi nga xam ne rek moom moo jiite parquet bu Ndakaaru di Ibrahima Ndoye Vox Populi di ko feelu ne chamboulement bu mag a mag moom la ñu amal ci biir magistrature bi ab mbale moo xam yu méttee métti Jomaay Faye ak Sonko nag exilé nañu ca Tambacounda procureur bii di Abdou Karim Diop doyen des juges Omar Maham Diallo ak Mamadou Seck bu deuxième cabinet El Hadj Issa Ndiaye Mamadou Cissé Fall Amady Diouf premier président bu cour d'appel bu Ndakaaru ak Ibrahima Bakhoum procureur général ñu daat leen di affecté ci administration centrale bu ministère de la justice kii di Hippolyte Ankelish Ndeye ñu daal di koy tabb ca cour d'appel bu Ziguinchor Hadj Yoro Moussa Diallo doon avocat général délégué près de la cour suprême yéene kaay bi ne jomaay fay kay jamono ji nag yëngal na magistrature bi ak i affectation yoo xam ne rek dafa soxol ñetti magistrat yoo xam ne dañoo laale woon ci coowal Sweet Beauté ñoom ñëpp exilé nañu leen foofee ca Tambacounda bokk na ci Omar Maham Diallo Mamadou Seck ak Abdou Karim Diop jële nañu leen ci peexum ndakaaru mi l'observateur ne ko moom kay nag ca biir magistrature bi yëngal nañu ko ba mu yëngatu ay récompense ak sanction démb jomaay fay amal na ko ay tête yoo xam ne rek ñoo fi fas yéenee toog ngir topp ñi nga xam ne rek ñoom ñoo doon luubal alalu askan wi magistrat yi nga xam ne rek dañ doon jël ay décision yoo xam ne rek bokkul ak doxalin bi nga xam ne moom la Pastef daan doxalee ñoom ñëpp sanctionné nañ leen APR di ñaawlu jamono ji nag justice beeg lañ ca nemmeeku ak vengeance bi nga xam ne rek jàpp na ne dañ koo amal jëmale ko ci kaw ay adversaire yéene cabinet Tambacounda daal képp ku ñu bëgg daan rek wala ñu bëgg laa duma te loxo du la laal foofee la ñu lay sànni laa siglekaay ne ko lum ci mënti doon daal juge yi nga xam ne rek dañoo laale woon ci procès bu Ousmane Sonko ak Adji ñoom ñëpp affecté nañu leen ca Tambacounda askanu Tamba nag jamono ji ña ngay ñaaw lu bët bi ñu xoolee seen dëkk boobee ci képp ku ñu bëgg daan rek foofee la ñu lay sànni direct news rassemblement yi nga xam ne rek am na ci biir magistrature bi daal Sonko ma ngay jël revanche l'info yëglekaay ne ko jomaay fay kay yëngal na justice bi bu baax a baax Maham Diallo ak Abdou Karim Diop Mamadou Seck ak Issa Ndiaye ñii nga xam ne rek ñoo doon sonal Ousmane Sonko jomaay fay ñoom ñëpp daal dina leen di punir yóbbu leen ca Tambacounda amadi Diouf ak Ibrahima Bakhoum ñu daal leen di dugal ca frigo foofee ca administration administration centrale bu ministère de la justice Souleymane Teliko nag moom mi nga xam ne da doon défendre ancien ministre bii di Sidiki Kaba moom daal dinañu koy rappeler foofee ca ministère de la justice mu di ay remaniement yu am doole yoo xam ne rek amal nañ ko ca biir cour suprême ak cour d'appel yéenekaay bi ne juge Sabassi Faye mi nga xam ne rek dafa déclaré woon nul ci radiation bi nga xam ne rek moom la ñu raje woon kii di Ousmane Sonko ci liste bi moom fi mu toll nii moom la ñu tabb mu doon président tribunal bu grande instance bu Fatick taxawal nañu nag commissaire financier ak parquet financier boo xam ne rek El Hadji Aline Abdoulaye Sylla moom mooy doon procureur de la république bu financier looloo waral ba yëglekaay bi di bés bi le jour ne moom koy jomaay fay nag ma ngay amal fast track yëglekaay wax ci wàllu réduction des comptes APR ñoom ña ngay ñaawlu nag ni ñuy dalee ci seen kaw lu jëm ci wàllu nomination yi nga xam ne rek amal nañ ko ci biir conseil supérieur de la magistrature bi nag ñoom nee ñu nañu nag ci wàllu réduction des comptes waaye lu jëm ci wàllu règlement des comptes le soleil moom dellu siwaat na ci stratégie yi nga xam ne rek moom la bëgg a taxawal ci wàllu sécurité routière yéene kaay bi ne nag seetlu gi mooy daal urgence yi nga xam ne rek ci lañ war a taxaw bokk na ci facteur humain yi nga xam ne rek moom mooy faral di jur accident yi nga xam ne rek mooy faat bakkanu doomu aadama yi ak lu jëm ci wàllu mbuxum yi nga xam ne rek dañu koy nemmeeku ci biir auto école yi ab cadre réglementaire boo xam ne rek war nañ koo yeesalaat wax ci yëglekaay bi di Le Quotidien ak li ñu ci lu mu xamul ndax ba mu envoyé Mary Teuw Niane foofee ca Riyad moom moomee nag roi bi dalalu ko bin Salman dalalu ko l'observateur addu moom itam ci coppite yi nga xam ne rek moom la ñu war a amal ci règlement intérieur bu assemblée nationale yéenekaay bi ne député yi ñoom ñooñee nag woo leen niki talaata ji ci ab session ordinaire boo xam ne rek war nañ koo amal jeexale yëglekaay yi ak wàllu tàggat yaram réew mi sport ma ngay xam ne ni lu jëm ci wàllu Jeux olympiques yu 2024 ci wàllu football Espagne moom moo daal